L'eau multimédia moo leen di may émission Assalafou Ma'al Qur'an Nous sommes l'eau multimédia 27 avenue Émile Badiane angle Paul Hall L'eau multimédia spécialiste la ci informatique bureautique divers matériel réseau ak yeneen i accessoire ci ay njëkk yu xarañ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 mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyu képp koo xam ne da ngay ànd ak ñun jotaayu asalafu ma alquran nekk ci réew mi wala bitim réew ñu koy amee ci kër gi nga xamante ne ñooñ alquran ñëpp ko bokk mu nekk la maison du Coran au Sénégal ci njiital sunu wóllare sunu mbokkum dara Cheikh Abdel Aziz Camara nu ngi koy jaajëfal di ko ziyaara waaye ak ñi moo àndal ñëpp tey nag ñu nekk di ko amaatee fii ci Mbuur jotaayu asalaf ma al quran jotaay yi weesu ñu nekkoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa ni mu daan dundee alquran al waaye di ci yar saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain alquran nekkoon seen lépp guddeeg bëccëg subak ngoon ñu nekkoon di jàng alquran al ndax ci alquran la defaroo mbokk ki nga xamante ne moom mooy usayd ibni xudayr hada al wa hada sahaabiyul karim dafa am benn bés mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa fa fat fas yéene koo nettali benn xew-xew boo xamante ne jalal ci dundu alquran al karim usayd ibnu dafa toog këram benn guddi muy jàng alquran al karim bi taxdid muy jàng surat al baqara bi muy jàng surat al baqara ba ci biir jékki-jékki fasam mu ngi yeewe woon ca wetam usayd ibnu xudayr mu jàng alquran fas wa daal di yuuxu di ne xel Usayd nee ne ma daal di noppi fas wa daal di ne tekk nee ne ma jàngaat fas wa daal yuuxu ca kaw fa sakata fa sakata til faras ba mu noppe fas wa daal di noppi Usayd daal di jaaxle lool mu daal di jàngaat fas wa yuuxuwaat ne xel yëkkati tànke ca kaw ne bu ne tekk fas wi daal di ne tekk bi mu gessoo fekk doomam bu góor bu tudd Yaxya mu ngi ci wetu fas wi ni fas wi dalee di tëb ak mu ragal fas wa daal di dal doom ja ba ca noppi daal di ñëw jël doom ja pour daal di koy puusal foofu Usayd mu daal di gis lu yéeme ba ko loolu jaaxalee mu daal di xëy dem ci yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaa rasulallah yow yonente yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam comme ni ma leen koy waxee saxaaba yi ngëneel gii la leen yàlla buur bi subhanahu wa taala mayoon lu ñu gis mu jaaxal leen dañuy xëy dem kër yonente yàlla Muhammad fekk ko ca jàkka ja lu nu bëgg a xam lu dañuy dem ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ngëneel mënta gën a rëy lii haulaay humu sahaba ridwanullahi taala alayhim yàlla mi nga xamante ci mbaaxam mayuñu ñu ñu dund ak yonent yàlla muhammad ci adduna gi waaye may na nu nuy janga waxu yàlla muy alquran waaye di jéem a xam lu sunna yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam maa ngi ñaan yàlla mu may ñu ñun ñii ak yéen ñi nga xam ne yéenay dund alquran yàlla may ñu ñu daal di toog ak yonti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam fi jannatin aaliyatin qutuufuha daaniya usayd daal di nettali yonti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne ko yaa rasulallah biig de damaa gis lu ma jaaxal lool dama doon jàng alquran alkarim waaye su ma jàngee sama fas wi daal di nexel yuuxu ca kaw su ma noppee fas wi ne teg ma jàngaat fas wi daal di yuuxu mu ne wa kaana bani yaxya bi jaanibi sama doom yaxya mu nekkoon ci wetu fas wi fa xashiitu ma daal di ragal fas wi daal di koy dóor fas wi daadi di koy wekk ca laa arrêté daal di dem yewwi sama doom waaye mu ne ko yaa rasulallah ne ca laa arrêté daal di dem jël dandal xale bi mu ne ko yonti yàlla Muhammad waaye li ma jaaxal bi may dandal xale bi ndeketoo la taxoon fas wi di yuuxu dama xool ci asamaan gis ay niir ay ker ay zulla fiiha mislu mislu al asabih nee na ma gis ay ker yoo xamante ne ay takkandeer ci asamaan si laa gis ñu bari lool waaye takk ndeer yooye ma gis ci comme ay lamp lamp yu rafet ñu daal di jege waaye ba ma arrêté laa gis ñoom ñuy dellu asamaan di dellu di dellu ba gisaatuma leen xam nga lan la ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam teg yontu yàlla Muhammad ne ko iqra ya bna Hudayr iqra ya bna Hudayr jàngal yow Usayd ibn Hudayr jàngal waroon arrêté continuel di jàng mu ne ko awa tadri ma daak est ce que xam nga niir yooyee nga xam ne da nga caa gis ay leer gis ci ay lamp lan la mu ne ko malaa'ika yi la innaha al malaa'ika nee ne malaa'ika yi laqad danat li sawtik ba ngay jàng alquran moo leen tax a juge asamaan daa di ñëw jege sa baat di jege sa di déglu sa alquran yonti yàlla Muhammad ne Usayd soo continué woon di jang alquranul karim nit ñi la asbaha annaasu yaraaha laa tatawaara mu ne soo arrêté woon wul woon malaayika yi dinañ gën a feeñ ba nit ñi di leen gis nga xam ne duñu duñu nëbbu te du ñu duñu fàggu duñu fàddu laa ilaha illa allah ma sababu maji il malaayika qiraatu alquran usayd ibnu hudayr alquran gi mu doon jàng moo tax malaayika yi daal di jóge asamaan ba daal di fees dell ak li nga xamante ne moom mooy këram kon fépp fu ñu waxee ne sooy jàng alquran yàlla daf lay xool di dañuy ñëw fees dell fa nga nekk loolu teguñ ko ci suñu waxi bopp lépp xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye ma al asaf ñun xamuñu li nga xamante ne moom mooy valeur u dund xamuñ ne dund suñ ko doon jaay la ko mën a jënd rek moom mooy jël suñu temps def ko ci alquran ak jaamu yàlla dañuy nettali ci téere yi ñu ne benn waay dafa mos a dem ba ci peggu géej ga na mu tooge ci peggu géej gi boobu ay fajar la woon mu daal di ñëw rek mu daal di gis kiisan min al xajar mu daal di gis benn mbuus boo xamante ne mbuus bi gafaka gi ay xeer la def moom daal mu daal di toog ci wetu géej gi su foree benn xeer sànni ca géej ga voix boobee maanaam xeer wi suy dal ci ndox mi voix boobe muy def baat boobu daal di koy neex lool mu daal di génnewaat beneen xaañ génne beneen xaañ di génnee fajar bi gën a xar fajar gi xar ba bi mu desee ba demee ba des benn xeer mu dem bay xaañ fekk jant wi génn na ba mu xoolee ndeketewoo ab mbuusu jamaa la fekkoon ca wetu géej gi mu jël di sànni di jël di sànni ba mu xoolee xam ne ay jamaa la sànni ci géej gi mu ne yàlla gabaa yi mu ne man maa dof man maa di man maa saggan ndekete yoo lii may sànni nga xam ne la ma ca neex mooy baat bi rek na muy dalee ca ndox mi rek ndeke ay jamaa laa doon sànni mbokk yi ce que xam ngeen ne li gën a bari ci ñun kulluna hada rajul li gën a bari ci ñun ñun ak waa ji ñoom ñoo yem parce que tey jii mbuusu jamaa joojee nga xam ne moom la jël di ko sànni ci géej gi mooy dundu doomu aadama nga xam ne dundu doomu aadama ñuy jël suñuy minit di jël suñuy waxtu di ko yàq di ko sànq ci ay caaxaan moom mooy jamaa yooyu nga xamante ne moom lañ jël di ko waa ji jël di ko sànni ci eh, géej gi baat boobee nga xam ne moom la xeer yi jamaa yi doon def tax mu neex lool muy sànq dundam baat boobee mooy mataau dunya wa shahawatiha mooy lan bànneexi adduna yi nga xamante ne tey ji da ngay gis dara diw moo xew la tey lii moo xew tey mu jaral la juróomi minute nga def ca loo xamante ne yàlla buur bi mbugal ba yowm al fajar googee nga xam ne moom moo xaar ba jant wi daal di fénk mu daal di xool door a xam ne ndikitiyoo la mu doon sanni ci géej gi du xeer ay jamaa la doon sanni loolu moom mooy lan mooy alxaqiqa ay an nadamu inda al mawt mooy lan mooy saa yooy dee da ngay xëy rek war a sukuraat nga door a xam ne ndikitiyoo sa dund gi la ko doon sànkee ci lu dul alquran yëpp ndikitiyoo da ngay xam ne yow ndikitiyoo yak waajale yéen a yem sa dundu sànk nga ko ci loo xamante ne amul benn fayda ci loo xamante ne ay caaxaan nga bëgg nadam nga bëgg rëccu te laa yanfau nadam rëccu dootu la jëriñ dara parce que yaa ngi jàkkaarloog malakal mawt war a dem ci yàlla mu laaj la sa dund bi wa umruka fiima afnayta sa dund ci lan nga ko jeexal ku nekk na nga laaj sa bopp laaj bii ëllëg di nga taxaw ci sa kanamu yàlla sa kanamu borom mu ne la wa umruka fiima afnayta sa dund ci lan nga ko jeexal bu boobaa kereyeel tontu bi fii ndax soo jàkkaarloog yàlla nga mën koo wax ne afnaytu umri fi ibadatik afnaytu umri fi qiraati alqur'ani wa tilawati alqur'an afnaytu umri fi lamali bilqur'an nga ne ko yàlla sama dund jeexal naa ko ci jaamu la jeexal naa ko ci jàng alqur'an jeexal naa ko ci jëfe alqur'an jeexal naa ko ci dimbali jaam yi jeexal naa ko ci wax dëgg jeexal naa ko ci julli ci yonent yàlla Muhammad waaye doo ko wax ne sama dundu ci ay caaxaan laa ko jeexal bu boobaa sa war a nekk sa dëkkuwaay ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaan salla alilahu ala annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala angle Paul Hall Dakar L'eau multimédia spécialiste la ci informatique bureautique divers matériel réseau ak yeneen i accessoire ci ay njëkk yu xarañ